e s Pro. zo làmb ngay am nii si kër gi zo ku ne mos naa fëgg mais làmb fëggagu la mais tey làmb la fëgg te zo dama kaa fekk si foo xamante ni mu këm boppam nangoo liggéey gis nga Zo ni muy wax ak yow noonu la nangoo liggéey respecté boppam te du tooñ te waa koñom ñëpp a ko bëgg Zo bu jugee sax xale yu ndaw yi dañuy jóg mais Zo lan mooy secret bi. moom laa bëgg nga wax ko gars yi si pratiquement tey làmb moo la fëgg. mën na la ko wax. kii. non yow laay laaj man dama osé man yow laay laaj Zo. Zo ah. kët sa mooy wax ak yow. kot lan mooy secret bi ba xale yi di la topp xale yu ndaw yi man waxuma ñi nga xamante ne ay mag lañ de mais damay gis sa open xale yu ndaw yi ñoo si ëpp yërmande googu nga am si booy yi. xanaa de topp lu ñu bëgg rek. topp bëgg. Uh-huh. di def lu lu leen neex. du du du ñàkk dund maa doole. Uh-huh. ñàkk ñàkk tegin. Uh-huh. ñàkk gëdd. loo am nga bokk ko ñoom. waaw. loolu mooy secret waaw loolu mooy doy na secret mais zone technique lu tax combat bi avorté ñu waat keneen dugalaat beneen ñaam bi nga jël ñaam bi. non promoteur bi laa yërëm rek. ndeysaan. moom laa yërëm. ndax ah. bu ma neexoon mun naa bañ. waaw bu mu doon keneen dinaa bañ. waaw ndax loolu concerne ma ay mbërëm mbapat oh. damaa xam ne nit ah. mooy jàppale moroomu jullitam. waaw. lii jàppale. waaw waaw ndax la neexoon man nga ne boobu comme que bëreewu ma ak naaru sokaas damay bàyyi mais dañoo jëlaat beneen adversaire zone nungu loolu mbër mu ne war na see xool ñeneen ñi ñu ngi may wax da laa war a dolli wala da ngaa waroon a dal ma ne ko non non garaawul oh. lu mu waroon am ci bés ba oh. bu dee yàlla loolu la tudd moom xelam lu mu ko may rek baax na mais soo reer nga bi ngay ñëw te yow sab reer da nga ko daan préparé de waaw reer nga non tey reeraguma non bokkut ak reer bala ngaa bëree ak reer boo daanee bokkul reer bala ngaa bëree ji laa la laaj. ah reer bala waaw Moustapha. ah Moustapha moom waaw. na Amérique. waaw bi yoon ñaata. Moustapha. waaw ah. kay lum jënd daa bëri te. nga lépp. ah fu mu nekk nii jaaruma ci añ. <laughs> lu mu soo loolu wóorul de. lu mu lekk ci biig moo bëri. Ah. bilaahi mais contact bi. yow boo rek kontaan na. mais contact bi nga doon def pare man hmm. waaw. yow contact rek lañ lay jox mais bu dee compétir waaw mais waaw xam nga ki boo indee contact rek jarul ngay xam kooku. dégg naa la. boo boo man mandee contact. waaw. Euh, de mandé àll kuñ la jox. ku bëre looy looy chiffre ci moom. loolu da lay ragal. yàpp yëpp bu meloon ni rek si am yoon. te jamono bii ñu nii. booy xool fu nga jëng. da nga yéex ak. lam ko romb nuyu ko mu yàggal la ci yoon bi. waaw mbott mu jël xool. boo ko tàccoo xam. yaa ma Sénégal waaw làmb ngay amaat nii si biir seen làmb tey dimanche ñu ñëw fii si journée Faye production ndaysaan bon muy journée bu neex ndaysaan gaa yaa ngi noonu waa Faye loo gisee journée bi ak bis bi. waaw journée bi neex na parce que Bamba dafa nekk nit koo xam ni. Uh-huh. du promoteur bu ndaw. kon tey bu defee bis bu mel nii boole sew technique ak beneen champion ndax lamb ji sax dafa dafa yàqu sew technique moo waroon war na brise de mer mais am na ku ko remplacer kin ko remplacer nag moom yoon la mu bëreeg Brise de ndax na ay preuve am ci lamb ji. lu leer ndax loolu boo gisee Bamba def ko. du gan ci lamb yàgg na tëgg lamb yàgg na tëgg ay journée. lu leer ki nga journée bi ni mel. ci lamb ji avarté bu doon beneen promoteur bu nekk cuune journée bi du nii. bu bu mu baax. bu toggul woon bu amul ndawal kenn du ñëw. kenn du ñëw te gis nga mbaxal maa saf. mbaxal mee saf. bu amul a lekk. <laughs> mais xam moom yow yaay lamb. bañ nga ko bañ lamb loog. soxor kon yoree micro da nga ko a yor boo yoru da nga a a jënd bengal amoo Dakar waaw nga am bu dee man la damay xam ña xam si làmb yow yow nga yaa ngi tëgg gis bis la si waaw tey jii nga dékk ma micro damay damay lay wax ni la li nga war a def rek moom nga def ndax làmb ji tey jii ki ko tëgg day sunu nawle di nit ku baax na nit ku yàlla baaxal boo gisee ñi ne Bamba nii la mel wala nii la mel du dara lu dëggu parce que Sénégal moom ñaare boo fa dëggoo rek ñu ne daa naqar wala daa mel leneen. Bamba taalibe Serigne Saliou la dëggu rek. Serigne la dafa dëggu xam li muy def nekk nit ku baax nit ku am valeur tey jii daal li ma la mën a wax daal mooy. bis bi bu neex la bis bu doy waar la. te daa tranquille daa tranquille. waaw waaw bis boo ma waa équipe ma nga Europe di daan dooleem gëm boppam gëm yaayam abo yàlla na ko yàlla dooleel arbitre soufflé na zone a ngay léemu zone technique a ngay léemu oh Badou zone technique a ngay léemu Badou zone technique bu léemoo ba pare day ñëw oh zone technique wàcc tibb na suuf scorpion songu na zone technique. ndeysaan xoolal zoo zoo lamsal na ndeysaan zoo ngay léewtoo sport de pion sport pion moo ñu moon ginnaaw man nag tur wi laa a mën dama jàngul sport de pion sport pion zoo technique ndeysaan sport pion sa tànk yi des na de hop hop war nga kaa liggéeyaate sport pion zoo technique kaw gee gën a diis de waaw waaw sport pion sa tànk yi kaw gee gën a diis zoo technique a gën a mais nag Scorpion mën naa nekk bërekat mën naa nekk ku si géew zoo technique dox na si kawam ba si yàgg mu taxaw ndaysaan hop hop hop hop jëlal ma yow zoo technique ngay am noonu zoo bàcce na garde bi zoo beese na garde bi zoo libéré dóor la zoo tibaat na suuf ndaysaan zoo technique bu ko jàppee yaakaar naa bëre bi jeex zoo ngi dox si kawam zoo ngi dox si kaw Scorpion ndaysaan jëlal ma zoo ne woon naa la garde normale ak fausse garde buñ bëree dug day gaaw mais xoolal ma combat bi jàll ak combat bi xoolal gis nga kenn ku ne da ngay mën a dóor sa morom kii combat kii xeex ak Joe Technique la bëgg Joe Technique daw na ko jàpp ko ah Joe ah, Technique daanu na Joe Technique ñàkk na Joe Technique song baa sori Joe juum na Joe song ba sori oh oh Scorpion daan na Joe Technique. oh surprise am na waaye combat bi yomb na si zoo zoo daa jaaxle zoo jaaxle na zoo songu ma sori zoo kenn du yooru oto du yooru mbër du yooru oto du yooru oto bu yooroo mën naa bañ a yeb mais mbër bu yooroo tamit mën naa bañ a yeb tey zoo technique yooru na waaye yebul kenn comme yeb dem na bàyyi ko fa zoo technique ñàkk na scorpion scorpion scorpion bëre bi na daka nax war na yàlla xam na ni zoo technique songukat la oh may ñu ñu jël ko oh. non du àgg dama koy woo.